Serigne Babacar mbay moo wax ne ki nga xam ne dafa woor comme ni ñu doon wax te loxo bi woorul. waaw loxo bu woorul xam nga yaa ngi woon ci signé même suñu autorité yi tey lu lépp lu ñuy siñe war nañoo xam li ñuy signé lan la. mu nekk siñaatir ak lu mu mënti doon bala ngaa signé dara war nga koo liir nga xam ko moo xam contrat la moo xam lu mu mënti doon loolu loxo buy doxantu du càgginu rek nga jël loo moomul mm-hmm. mais loxo bi lépp lu muy liggéey tey mag yoo dem ci mécanicien jox ko sama oto mu war la defaral pièce bu kiiwul mu defal la leneen mu defal leneen. Mm. wala nga fekk oto ya gaare ñu di ko defar nga soxla benn pièce au lieu nga jëndi ko nga facturer ko ba pare rocc ko ci beneen oto jàmbur defal ko kooku. Mm-hmm. xam nga kooku bu demee dawal otoom oto bi mu génn si àdduna. Mm-hmm. encore itam défaillance yi nga xam ne ñu ngi nekk ci oto yi. Mm-hmm. macha allah yooyu yëpp nekk loo xam ne daal na auzubillah bu loxo bi wooree daal. waaw xam nga dafay dellusiwaat ci li ma doon wax démb. kooru benn weer. ak kooru douze mois. waaw mooy rab rabbaniya ak mawsimiyiin yi xam nga dafa am ñoo xam ne dañuy woor ndax yàlla dañuy dund dañu xam ni douze mois yëpp yàlla lañu ñu nekkal te te yàlla du gëmmëntu du nelaw mhm. am na ñoo xam ne nag sax dañoo defe ne rek diine ji jaamu gi. Mhm. na yem rek di première ba ci 30 ci weeru koor gi ñu pare ci xam nga fi mu nekk macha allah même sax kër gi gis nga fi mu nekk xale yëpp a ngi mhm. maa ngi gis ñoom gañ si rek ñoom ñoomin Khadija ak ñoomin tey daal kër gi ñëpp ay soxna la ñu. bi ñuy jub koor gi. waaw ma dégg benn reportage ci bi rajo bi. waaw ñu ne ñu ne dañuy changé garde robe yi ma ni alhamdulilah. <laughs> comme dañ koy changé yàlla buñ ko yàlla buñ ko changé waat. mais demee ci salon yi tamit ñëpp orange yi euh, weey yi fomp nañ ko dagg nañ ko compagnie ñoom Adja Madou yooyu yëpp fi mu nekk koo ci xool loxoom mu ngi sell waaye yooyu yëpp ci ci kooru loxo la waaw mais nag dafa war continuer waaw mu nekk rek nga bañ a nekk mawsimiya hmm. mais nga nekk rabbaan yi nga xam ne bokk foofu kon hmm. xam nañ ne Babacar loolu mu laajoon presque ñëw na ah, soxna Aminata nag hmm. eh, yaayu sëy mais du yàq kooram du yàq kooram du waa sàcc du yàq koor mais <laughs> day day indi musiba ndax mën ngaa woor ba pare sàcc dem ci safara waaw ndax as saarix ndax normalement yow boo sàccee dañoo war a dagg sa loxo waaw bu doon ne dañuy àttewoo diine maa ngi dégg léegi nga xam nga ki ki woor mhm. jël mhm. daggul ñu jël ki ci ligne bi te ñëwaat ci moom waaw mhm. asalaamaaleykum wa rahmatullah waa tur bi ak fooy wootee man maa Awa Ndoye laa tudd. Awa Ndoye Ndoye ñañ maali maram yow sama yaay nga sama yaay Ndoye la sant. ah. Adja Ami Ndoye ah, maa ngi koy ah, ziar ah, ah Adja Awa Ndoye na def. fooy wootee. Tëngéej laay wootee. ah yow lébu piir nga yow alab lébu. <laughs> Tëngéej waa lébu laa moom. waa naka mbokk um, leen. Colobane Thiaw leen. yow na mokka de <laughs> na nga def nag nu ngeen dundee koor gi foofu Adja Adja Awa Ndoye ah koor gi de mu ngi nii neex ba bëgg dee wax dëgg yàlla. ah ku baax nga Ndoye ñañ naa ah, li maram. waaw trop wax waxtaan bu neex bi nga xamee ne. Mm-hmm. da ngeen si xelal nit ñi. Mm-hmm. ñuy gën a ci yàlla. Mm-hmm. suñu borom. moom la a neex. macha allah macha euh, euh, euh, ah, allah fajar. bu jot dama koy déglu. waaw fajar moom la ñëpp di déglu fajar wax dëgg yàlla fii activité mu nag. trop léegi léegi léegi yow loo loo bëgg ñu yokk ko ci. joxe ndog yi lañu war a yokk wala waaraate bi la parce que ndooy nga sant nag. man ñoom Adja Ndeye Fall ñu ngi lay déglu de. jànguñu mais. ci yéen jànge. waaw. ci yéen jànge lu bari daal. waaw mooy mooy mooy pratique yi ñuy wax ni pratique de l'islam li yu bëri. si ñun ngeen koy jànge mais est-ce que alquran bi itam. gën que euh, yaay booy yaay awa awa ndooy. Ah. est-ce que itam du jaadu itam alquran bi itam ngeen wut ku leen koy ijjantul su su tëngeej googu nga xam ne macha allah ay boroomi xam-xam yu bëree bëree nga fa góor ak jigéen. ngeen ngeen ngeen di dugg si daara yi waaw suñu imaam Abdou Aziz waa ah, moo ñu yóbbu ba ca Kaaba ga foto ñu ñun waa Arahma waaye imaam Abdou Aziz Ndoye ne ko maa ngi koy nuyu bu baax baax a waa Rahma ña mu yóbbu woon ca Kaaba ga ba max naar yëpp yóbbu ñu ba ca Kaaba ga foto ñu nee ñu ngi koy nuyu ñun ñëpp. ah yow yow yaay booy kontaan nañu. yoo xam naa ne ku la jox euh, juróom-ñaari litre diwlin teg ci juróomi kilo meew teg ci tàndarma ak yooyu dina baax ci ndóoyeen yi wala. waaw wala yow da koy baal faaleen yi ak jë ñangeen yi. dama ci la sant. Fall <laughs> yi nga ciy sédd. <laughs> ah waa dinaa di mais dinaa téléphoné oustaz imam Abdou Aziz Ndoye de laaj ko ba xam ndax ndax Fall yi nekk foofu jox jox nga leen ci. ah dama leen ñoom samay samay ñoom Asou ak ñoom Adja Kine ñoom ñëpp. waaw ñoom Adja Fall. ñoom ñoom ñaari tali Ndeye Fall euh, HLM Grand mm-hmm. ñëpp daal xam naa ne ñu ngi lay dégg. ñoom may dégg ah mu ngoo kon nag léegi daal li ñuy def mooy. yu baax yooyu sa njëkkee yu baax yooyu. <laughs> voilà kon nag damaa bëgg après dinaa fa ñëw nag seet si la imam Abdou Aziz pour que. su ma ñëwee nag ma laaj lu sama yaay booy jàng. d'accord kon xam naa ne bul coupé après. man maa la gën a soo xam nga man waa Tëngéej ñooy samay njëkkee. moo tax dama leen a bëgg. Ah. xam nga kaaw Tëngéej la dëkk nag. Ah, jeex na mu ngoog may nuyu nag Fat Sakho itam bu sam Ilimaan. waaw Fat Dramé Fat Dramé nekk soxna Fatou Bintou ngi lay nuyu bu baax sama ah, nag ma ko nuyul bu baax nga ziyaareel ma ko ci weeru koor gi nga ne ko damaa tukki woon rek waaye sama xel yépp a ngi ci moom dëgg kon bala ngaa kii bii rëcc la kon dañ lay bàyyi nga euh, jote ak waa régie ñu ñu yónnee la sa sa sukkaru koor maa ko jox waa Tëngéej yépp nag di ko neexale kaaw léegi li ma am fii ci TFM loolu loolu laay neexale waa Tëngéej xam naa ne bi bi Binte Diallo ak ñoom Khady Ndour moom ñu ngi ñu ngi ñu ngi xaar seen wàll mais nag comme duggaguñu ak Oumy Ndiaye ñoom ah ku duggagul nag moom doo si doo si doo si ñam kon oustaz ñoo ngi woon ci. ci kooru loxo mais am na soxna Aminata mhm. moom it yaay booy yaay Seydouna Mohamed moom it ci Facebook bi mu ne day nàmpal te dafa dégg ñu ne kuy nàmpal du woor mhm. xam naa nag des na foofu ñu bàyyi la balaa may balaa may tontu borom nàmpal bi mhm. damay mottali ci borom kuy doxantu bi xam nga bu loxo bi doxantu bi xam nga da nga jàngale léegi nga wax ne yonent bi nee na bépp suux bu ñu suuxate lu daganul feneen la gën a awla bihi alors léegi kiy woor ba pare. Mhm. bëgg yàlla nangul ko kooram. Mhm. ba pare mu fas yéene di loxoom di doxantu ba pare muy doge kooram loo xamante ne bi loxo bu doxantu moo ko jox. auzu billahi mina shaytaan ba pare yaakaar yàlla pour mu nangul ko kooram na liggéey ak xelam. parce que bi nee na bëri na kuy ñaan te bu nee allahuma xam nga bi bi dama wax ne yàlla moo def ne mu ngoog mhm. parce que li mu lekk mhm. bu jaarul yoon soo ñaanee du nangu du nangu fekk yaa ngi sa yaram lu boo bëggee boo ñaanee mu nangul li nga li nekk ci biir day dagan day dagan allahu akbar loolu moo tax loolu moo tax même bu fekkee koor gi nangu na mhm. am na lu bëree bëri bëri bëri bëri bëri loo xam ne ñàkk na ko moo tax nit daal dafa war a yar loxoom dafa war a yar loxoom. ci yooyu di ci ñëw après. mais ñoo xam ne même bu kooram nangoo. am na yu bëree bëree bëree bëri bëri yu mu yàqule. loolu na ci bàyyi xel boroom kii nàmpal. gis nga euh, nañu moytu di déglu. koo xamante ni kii ñaare nekkul am nekkul à hauteur. waaw kay koo xam ne daal. te tey rek ndeysaan maa ngi doon déglu ci émission benn télé ñuy wax ñi nga xam ne ñoo waroon waaraate parce que ñu ne neex am talent rek taxul nga war a mën a egg ci mustawa boo xam ne da ngay wax nit ñi di la déglu parce que xam nga ki ne nit ki kuy woor kuy nàmpal rek du woor mais kiy nàmpal nga xam ne yow sa doom am na lu mu lekk xam nga nàmpal wal walidaatu yurdi'na awlaadahunna hawlayni kaamilayni liman arada an yutimma radaa kon dafay dem ñaari at ñaari at boobu bu fekkee ne sa doom dëgër na mu ngi nàmp mais am na mun na lekk mën na naan yow xëy na sax nàmp ba accidentellement lay ñëw xam nga kooku terewul dara ak ci sa koor mm-hmm. xam nga nag Adja. lool moo tax nit ki. Mm-hmm. fatwa. Mm-hmm. fatwa lu garaaw la. lu garaaw la sax. def leen nangam ci diine ji. Mm-hmm. te fekk ne peeguloo yëpp. yëpp waaw lu garaaw la. moom kay loolu moo tax moo tax fu ñu toll di gën a gëstu ni eh, tayib di wax ñu demaat ci kàggu yi rek. yonent bi sax sax li mu waxoon. dafa ni diine ji dafa cher. dafa cher. na ko jële ci ñi ngeen am ci ñoom confiance. dëgg la. kon daal kon li ñuy wax foofu rek oustaz mooy képp kuy nàmpal mm-hmm. bu fekkee ne yow nàmpal bi jeexitewul ci yow nii yow ci sa santé mm-hmm. ak ci meew mi ngay joxe mm-hmm. ak yi tamit ci nga xam ne ci xale biy nàmp mën ngaa woor boo xamee ne nag xale bi ni soow bi kese la yaakaar te yow ragal nga ne boo wooree parce que am ñu bëri ñu koy laye rek pour bañ a woor mais nag boro ngi lay xaar ah, te xam nga ne fayu un mois woorandoo woon ko nit ñi moo gën a yomb dëgg dëgg su ko defee ñuy wax ne kon daal ki nga xam ne itam du tee nag lislaam may na ko su ko xamee ne mu ngi loru mu bañ a wor mais buñ ko banaliser rek yombal ko yombal goo xam ne kon soxna Aminata loolu lañ koy tonte euh, jabu mbay tamit même dafa ne fidya bi ndax moom mun na ko joxe ci en wala en CFA moom kay loolu oustaz <laughs> defe naa démb wax nañ ko sax ah. ku nekk fi nga nekk oustaz mm-hmm. euro fa nekk wala chrono la bu fekkee Norvège ak ay Danemark ak yooyu nga xam ne ñoom euh, yeneen kii la wala Allemagne yeneen xeetu Allemagne sax léegi euro la ñuy jël bu boobaa moom bu mu sonal boppam na jël xaalis boobu mu xool luy doy nit ki lekk bu dee mën na si jënd benn KFC wala benn McDonald wala benn euh, euh, kabab wala mu xam lu muy kii mu seet loolu lu muy jël xam naa daal Europe ku fa jox nit 10 euro wala quinze euros dina ci mën a lekk ba suur. macha allah waaw su ko defee oustaz ma joxaat de kii kii Ndeye Yacine Sey moom nee na da doon togg <laughs> kii sëyeen ñi ñan ñoo leen di summi <laughs> nee da doon togg faf ñam. ndax dañu ne mun nga ñam xam nga bokk wax naa leen démb ne bokk de. lii moo tax ñuy ragal sip. am na loo ci waxoon démb. xam nga xam nga euh, Adja xam nga jigéen. Mhm. ak góor mhm. dañuy dugg waañ. waaw góor ñi ah Sénégal rek la góor ñi dul dugg waañ de. jigéen ak góor yëpp dañuy dugg waañ mm-hmm. di togg. Mm-hmm. te pour booy togg. Mm-hmm. fokk nga xool est-ce que saf na walla saful. waaw mais dafa jar ñu jàngal nit ki fan fan la ñuy saftaloo. waa ndax ci put gi la walla ci làmmiñ bi la. <laughs> xam nga saftalu ci catu làmmiñ lañuy lañuy la ñuy saftaloo kenn du saftaloo ci biir làmmiñ ci biir biir ci biir a biir wala euh, tàqamti ko ko mu rëcc mu barasti dem loolu mooy indi loolu mooy indi ca parce que guu bu nekk dafa am fu ñu koy jëlee guu couleur xam nga guu cafka bi dafa am foo xam ne fu nga koy jëlee si làmmiñ bi foofu nga koy jëlee nag bu fekkee foofu rek la yem du jàll la loo tax ci même ci jàpp. dañuy tere boo wooree nga nga nga woo ndox mi bu baax. waaw parce que dañuy bañ. parce que isbaaxul wudu bi boobu. ñu na na na waaw parce que dañuy bañ mu rëcc. Mhm. ndax descente la lu bu fa tegoo rek day glissé dem. Mhm. loolu la ñuy bañ. Mhm. léegi nag comme yàlla na do ko loolu njuumte la mu dal ko. dañ ko wax ne ko na fay bis boobu rek. mu ngoog. kon bés boobu kon nag soxna Ndeye Yacine Seye xam naa ñoom Anta Seye ak ñoom Yaa Fatou Seye ak ñoom ñëpp Seye Seyeen yëpp daal ak ñoom Mansour Seye yéen daal Seyeen bi ñoom ñoom Anta Seye <laughs> ñoom euh, Kiné sëy Seyeen bi daal weer na weer na leen su ko defee kon daal li ñuy wax mooy Ndeye Yacine Seye kon démb li nga def nga ñam noonu mu rëcc ak képp koo xam ne loolu arrivé na la euh, na nga xam ne da ngay fay te oustaz sax nag jéeg dëgg mm. war naa maîtriser waa ñam ba nga xam ne xam na cafka bi te du ko ñam mm-hmm. mais xam nga koor gi comme koor gi gars yi dañoo ragal koor. waaw xëy na moo tax. waaw waaw dëgg la waaye waaye jéeg dëgg ci biir waañam. Mhm. war naa am mesure boo xam ne su ko ne su ne jàkk ci nam léeg-léeg nga jeeg dugg ci këram rek daan ne jànq bi ndax def nga dara ci sa ci cin li ndax am na laaj ndax def nga dolli nga sa sa sa sa ndax def nga nokkas fekk dara waralu ko bu dul maîtriser mu yor mais est-ce que est-ce que est-ce que ñenn ñi ñu ngi toog ci kër gi bay xam waañ wi Euh, loolu loolu loolu oustaz même euh, am na ñoo xam ne macha allahu taala formation la moo tax suñu doom yi jigéen ñi il faut ñu leen di former ci biir kër gi. Hmm. ak waxuma sax xam nga togg jafewul mais euh, defar togg moo jafe. Hmm. nga sóor mu cooke. nga doon sóor tey xam naa ne jigéen ñaa ngi may déglu te loolu xam naa war nañoo dugg si ligne bi man xaw ma lu tax ligne bi parce que man da ngay génn lu ma téeméeri nit di la wax ne ñoo ngi woote perd nañu huit mille wala dix mille te jotuñu te léeg-léeg téléphone bi xaw a yaraax damay bëgg ñoom parce que dañu waxoon émission bi al axzu wal ataa la mhm. joxe la ak nangu dañuy bëgg ñu joxe seen participation lool lool lool ba pare jotaale ci xéewal yi. Mhm. gis nga oustaz euh, mayonnaise bu dog mhm. jéeg war naa rus a wax ne dama doon mayonnaise mu dog ah. jéeg war naa rus ne dama doon togg mu wex xorom jéeg war naa rus ne dama doon taal sama cere dafa ënn wala sama ceeb dafa cooke ndax ñorul ndax yooyu yëpp dafa am lu koy lu koy lu koy rafet lu koy defaraat fu mu toll ci cin bi rek lu lu manqué tey sax mën nga dem ba nga xam ne yaa ngi waaja sóor nga jékki-jékki sëriñ bi wàcc ak ñetti gan ñeenti gan mm-hmm. foofu boo yokkaatulee lekk bi rek parce doo vrai jeeg mm-hmm. des na mm-hmm. kon euh, ñu bàyyi xel ci loolu yëpp formation la mm-hmm. laajte na encore itam dafa kii mu ngi wax ne euh, ñetti façon ndox yi nga xam ne ban moo ci mooy yi xale bi lim léegi loolu ma delloo la kàddu gi foofu mooy cinquième question bi defe naa xam nga dafa am ndox bu ñu tuddee al al al maniyu maniyu ak bu ñu tuddee al masiyu ak bu ñoo tuddee al al al waddiyu mm-hmm. su fekkee waddiyu la mm-hmm. li ñuy def ci tuur ndox mm-hmm. saw moom lañ ciy def moom kañ lay ñëw ci nit en général nit ki bu tuuree ndox ba pare mooy toppaat ci ginnaaw tuur ndox bi kon kooku maa ngi dégg sànq oustaz pab Anne di wax ne góor bu defee loolu ba pare war na tollu jéego yu muy def pour mën a fiiru mhm. déedéet nuñ koy wax siiwu mhm. pour loolu ndox moomu génn mhm. te oustaz loolu ni muy génne si góor noonu lay génne si jigéen muy xam-xam bu bees tey waaw jigéen ju nekk bu tuuree ndox na xaar tuuti ndax am na luy ñëwaat waaw mag ñi dañ ko doon jàngale. waaw dañ doon jàngale. dañ doon jël kaas. Mm-hmm. kaas. waaw def ci ndox. waaw bu ñu jëlee kaas def ci ndox. Mm-hmm. daal di tuur ndox mi. Mm-hmm. dem teg kaas bi. ay deux minutes trois minutes. ñu yëkkati waat kaas bi bu ñu defaatee nii ndox tuuru. mu ngoog. ñu ne la lii nii. Uh-huh. soo ko xaarul ba mu génn ba tuuru. Uh-huh. soo ko kii ci sa yaram lay ñëwaat ak sa yére. moo tax léeg-léeg. ngay gis ñoo xam ne bu ñu duggee si wanag bi génn ñëw toog seen uh, suufu sër yi tooy wala hmm. seen bubu yi tooy. gis nga papier yi ñuy def ñu bëri defe ne ay affaire tubaab la. jullit dëgg moo ko war a utiliser. Eh, loolu ñu ci alxuraan sax de. waaw. loolu moo rijalun yuhibbuuna an yatatahharu mhm. fiihi rijalun mhm. yuhibbuuna an yatatahharu mhm. wallahu yuhibbul mutahhirin wallahu yuhibbul mutahhirin parce que yonent bi sax bi ñu ko laajee ne ko waaw lan moo tax yàlla tagg waa xubaa mu ne parce que dañuy utiliser papier utiliser ndox utiliser ndox mu ngoog kon gis ngeen ne kon léegi gis ngeen ne dañ koy gis ci toilette yi ñu koy jaay te seerul dara kon laaj na ku nekk di ko jëfandikoo. am yëngu. ci ligne bi bisimilah man boobu damay sawar ndax damay bëgg ñu bokk ci waxtaan bi. ok macha allah na salaamaaleykum wa rahmatulah. allo waaw. waaleykum salaam wa rahmatulah. yàlla bu baax tur bi ak fooy wootee. Roqaya Rufisque. Roqaya Rufisque na def. maa ngi fi. naka waa Rufisque. papa sama yaay noonu la ma bëggee. sa yaay noonu la ma bëggee yow nag yow bëgg nga ma. waaw sa yaay moo ma gën a bëgg. moom moo la gën a bëgg nag. Ah, roqee kon nag man sa yaay man tamit moom laay gën a bëgg nag. <laughs> waaye man yow laa gën a bëgg ba pare parce que yow yaa ma woo. wala ma bëgg leen yéen ñaar ñëpp rek Roqeya. suñu allah macha allah loolu dëgg la foofu mooy dëkk oustaz Abdou ba ah? mu baax mi. ma ne foofu la oustaz Abdou ba firi gént mu baax mi ma foofu la dëkk. oh mel la oh soxna Roqeya. mel na ne rëcc na ah Roqeya nañu mais xam naa Roqeya dina dellu si waat ndax mooy doomu Seydouna Muhammad. ndeysaan allah waaw waaw ndox mi. Mhm. dafa man manniyu uh-huh. ak masiyu uh-huh. am waddiyu uh-huh. ak bawlu ak bawlu te bu ci nekk dafay laaj ñu def ci dara ñu def ci dara léegi moom nee na ñetti ndox yooyu léegi wax nga mas yu nga ñu wax léegi waaw léegi nag wadd yu nga wax wala mas yu nga wax wadd yu nga wax lan mooy mas yu nag oustaz léegi nag wadd yu boobu mooy ànd ak tawur ndox boo sawee. saa yoo sawee rek loolu di génnaat loolu mooy waddiyu. mooy waddiyu mooy ndox boobu nga xam ne dafa nuroog saw sax daanaka kenn nee neexu la teqale. ma ne nag góor ak jigéen ñëpp ko am. ñëpp ko am waaw léegi nag oustaz mas yu nag mooy lan. mas yu. Mm-hmm. dana moo moom day ñëw. Mm-hmm. xaw a mel ni. Mm-hmm. man yu. maanaam liy génne man yu. daanaka mooy mooy mooy avant première man yu. waaw moom daal ci waajtaay bi lay génne waajtaay bi lay génne waaw te yonent bi doon ci xirtal nit ñi torop ñu koy waajale balaa lële di ñëw parce mooy tax bu dee ku góor ki Euh, mu mu dëgërle bu dee ku jigéen ki itam mu ubbeekule pour pour mu gën a yomb parce que waroo tëb rek yonent bi dafa wax ne ñu ngi ci weeru koor nag ñu baal ñu euh, parce que parce que damay ragal borom cinq minutes démb bi waaw <laughs> xaw nañoo rey démb démb dañ may woo woo ne ma juróomi minutes yi soxla Fatou Bintou lu ci xëj man leen dara xëju ci oustaz Mor a ko ci bëggoon a xëj xëjala waaye dara xëju si léegi euh, ji jigéen bi wala góor bi yëpp moom defe naa ñoom mas moom ñëpp a koy am. waaw xam nga mesure. waaw yàlla da ko defal ko góor. Mm-hmm. defal ko ko jigéen. Mm-hmm. Euh, ci wàllu jàng li ñoo tuddee éducation sexuelle. Mm-hmm. xam nga l'islam bàyyiwul dara. dëgg la. Euh, éducation sexuelle gis nga sa sa sa der bi boo koy bomb ci der bi balaa yàgg rek mu fut. Hmm. der bu ñuy frotté nii rek day dem mooy mu fut. suñu borom nag bëggul mu fut. moo tax mu créé liquide boobu bëggul bëggul mu mu teppeeku si côté ku góor ki mais ku jigéen ki itam mooy gën a mettile comme moom dafa yore loo xam ne day tëju. te dafay laaj mu tijjeeku. Hmm. te ndox moomu moo koy dimbali pour mu tijjeeku. dina yàlla yàlla yàlla booy boo sa xol bi bu amee nu muy. neexee rek suñu borom suñu borom tuur ndox mi déjà. allahu akbar. cey zul jalaali wal ikram pour ndox mi déjà allahu akbar léegi nag ndox moomu nga xam ne moom mooy génn noonu mhm. di génn di di commencé di tooy parce que am na lu sa xel di commencé di xalaat mhm. wala am na lu sa xel di commencé di dem mu commencé di génn mhm. ndox boobu moom lañu tuddee mas yu waaw mazi boobu kon moom boobu jar bu génnee rek jar na sangu. déedéet du sangu gum. boobu lu koy lu muy def moom day raxas ak jàppi. waaw mais toj na njàpp. waaw mais tojul cangaay. waaw bu mag bi nag moom. bu mag bi nag ba buy génn. Mhm. comme day def effort comme ni koy alxuraan génnee. Mhm. ni maa it daafiqin. waaw moom suy génn day ànd ak benn fitna. waaw. loolu fitna boobu mooy waral ngay. min maa in daafiqin yaxruju min bayna sulbi wa taraib allahu akbar loolu nag nga xam ne ci cerveau ba lay jóge di waaj. waaw te bu yibee xam nga sangu bi. Mhm. sangu bi. Mhm. pour nga nettoyer sa bopp la. dëgg la mais am na lu foog nga adhéré waat ci lislaam hmm. parce que fàtte nga fi yàlla. allahu akbar waaw ndax foofu moom. <laughs> kenn xamul mu tudd daal. naa daal si ñu. fàtte gi nga fi fàtte yàlla doy na waar kon léegi moom wax nga ko ñetti façon ndox yooyu muy mas yu ak wad yu ak mani yu wad yu mooy bi nga xam ne comme saw la rek mani yu itam couleur moom wad mooy dafa moom moo gën a oyof waaw moo gën a moo gën a oyof te xaw a mel ni eh, eh, kii dafay xaw a rattax tuuti rattax tuuti mais du rattax complètement day nekk waaw liquide bu oyof lay doon bu oyof lay doon glissant la wax si mani yu bi nag moom mooy bi nga xam ne moom mooy sperme bi yàlla di defaree di nit mhm. nga xam ne doomu aadama yëpp ci boobu boobu la ñu jógee. ok ndeysaan nga xam ne ah. nit du dara. Euh, wallaahi imaam imaam Xasan al Basri yi wax na yi wax na ci wax ju am solo. Xasan euh, al yi nee na. Mhm. pourquoi nit di tiitaru. wallaahi te bunt bi mu jaar ñaari bunt sobe la. ñaari buntu fi fi fiñ la ñu la sose man yu la fi nga génnaate yi tamit yëpp ñaari buntu so ah, sobe la ah, te ñaanoo yàlla kenn gisal la ko ah, yàlla jaarale foofu doomu aadama yàlla ke allahu akbar kon defe naa loolu mooy question yi nga xam ne loolu moo tax nag Adja waaw ci weeru koor bi mm-hmm. ñuy tere nit ki di seetaan mm-hmm. lu yëngu luy lu yëngal lu yee man yum waaw defe naa ne man dinaa waxaat nag ci téléphone France bi 0899 540 663 parce que xam naa message yi ñëw sama portable yëpp. mooy wane ne ñoom ba léegi mënuñoo jàll waa France. ak waa Espagne itam 806 405 841 806 405 841. ñuy ñaan waa régie bu fekkee ne ñu ngi yónnee message rek di wax ne ñu ngi bëgg a dugg mënuñoo dugg numéro yi bu fekkee ki nañu ñu waat ko. pour wax nit ñi ne ba tey ñu ngi continuer di leen xaar ci ndogu yi li ñu war a jox waxee mais tamit ñuy def téléphone yi ñuy wax ne nit ñi mun nañoo dugg fii ci réew mi 88 628 65 65 88 628 22 22 88 628 04 05. oustaz waxoon nga ne xam nga ñu ngi woon ci weeru loxo bi. Mhm. xam nga dem nañu ba egg ci signature yi mais dem nañu yi tamit ci jël loo moomul dem nañu yi tamit ci laal loo warul laal. loo warul laal xam nga. taseeg jigéen nuyu ko di nabbi nabbee loxoom di bës wala nga akolaat ko démb am na ku ko laajoon xam nga loolu yëpp loxo yi tamit ndekete même nuyoo bi. Mhm. lan la ci lislaam wax. xam nga yàlla dafa wut. Mhm. nuyoo saabu de ma waxee joxe loxo. Mhm. parce que nuyoo moom leneen la. xam nga joxe loxo leneen waaw. li gën ci moom. mooy mu tënku ci li yàlla santaane. yàlla dafay dafay xàjj lu yegg ñun ñu dem ba mu yàgg ñuy wax naan non man nuyu naa ko mais sentiruma dara non non mm-hmm. sunu borom moo la bind. Mm-hmm. li nar ñëw xam na ko. Mm-hmm. boo ne yow man nuyu naa ko te sentiruma ko am na keneen koy nuyu di ko sentir. di ko sentir waaw dëgg léegi nag pour bañ comme distinction bi mënul yombul. sunu borom tëj bunt bi benn yoon. waa ne la bu ko jox loxo. bu ko jox loxo. ñun ñoo ko tuddee nuyoo mais joxe loxo ak nuyoo. du benn bu ko jox loxo nuyoo mooy asalaamaaleykum waaleykum salaam. waaw. loolu mooy nuyoo. dëgg la léegi nag Fat bintu mhm. ak grand frère am Fat Bintou ak borom këram. Mhm. loolu bu boobaa loolu ñoom ñoo bokk seen mbir. Mhm. parce que te bu ñu demee sax am na lu grand frère bi di meew ko. su boobaa day ti Fat Fat Bintou ko jox la ko. waa dëgg la. parce que gis nañ fi inceste yi. góor gu tëdd doomam góor gu tëdd rakkam góor gu tëdd nangam sangam. boobu góor mokki ñoo bokk même deret bi. mais góor boobu dañ koy sadd dañuy baare yoon bi ne ko bul ko jox loxo. parce que moo yegg foofu ci doye di ak matadi. dëgg la. loolu tamit mooy ñëw jigéen yàlla da ko sant bu fekkee góor bu mu daganul bu ko daganul la euh, góor bu ko daggan la mu téye loxo mm-hmm. salaamaaleykum waaleykum salaam mais ñun dañ ko def kersa da ngay gis koo xam ne dalay wax ne de sérieusement man duma jox góor loxo mais su ma góor joxee loxo nag nan laay def ndax damay rus su suwat moo xam mu nekk sa patron wala yenn saay sax am na ñoo xam dañ naa ma sama sëriñ la xam nga yow yaa ngi nettali fi benn bis benn année dafa naa daaw jégal wala daaw waaw nga nekk ci benn sàppe mhm. président de la République Abdou Diouf ñëw di nuyoo di nuyoo waaw waa dëgg la bi mu yegsee nga ne salaamaaleykum rahmatulah moom tamit mu banque loxo bi. dafa ma jub rek man man ni ma defee ne salaamaaleykum am président Abdou Diouf dafa yaru moom it mu ne ma asalaamaaleykum rahmatulah taxaw lu yàgg waxtaan ak man. te boobu bi ñuy dem ñëpp a ngi amoon inquiétude kër ka man. boobu nag xam nga muuraay ak jox loxo ba kiyul woon comme léegi nii. mais xam nga comme comme loolu nga gis noonu. maanaam mhm. yow. Mhm. ni nga xamee ni kii waruma ko jox loxo. Mhm. moom it mu conscient ci ne kii waruma ko jox loxo. waaw loolu maanaam dafa maanaam Mor Thiam war na yëg ne kii waruma ko jox loxo. Adja Fatou Bintou war na yëg ni kii waruma ko joxe du am benn jeune déedéet amu ci de du am benn jeune walaa yaxaafu lillaahi lawmata laa'im wallaahi jullit noonu lay def mm. am na loo xamante ne bii kersa dulu ci am koo xam ne danaan la man sama sëriñ moo ma jox loxo nan laay def non de te encore dama gis ñoo xam ne itam oustaz dañuy joxe kurus léegi ñu yore kurus bu leen jigéen ñëwee nuyu ñu ne jigéen ji na jàpp ci kurus bi euh, dañ ko delloo ci mm-hmm. dañ ko delloo ci côté tariqa euh, ci ah, ci côté boobu ci côté tariqa la côté tariqa mm-hmm. parce que boo dee boo dee boo dee joxe wirdu boo dee joxe wirdu wala ngay yeesal jigéen ñi ñëw di weesalu kon kon gis nga ba tey mu ngi gën a confirmer waat ne éviter jokkante loxo bi éviter jokkante loxo bi kon itam loolu dañuy xam ne encore ak miinal dikki dégg naa Serigne Babacar Sy benn ci mujj dundam waaw ay daayira jigéen ñëwoon nañ ci moom di ko bëgg ko ziyaare ne ko dañ lay ñaan pour ñu jàkkaarloo ak yow nii mu wàjja mhm. mais dafa bañ ba tëdd ci bi waaw ne leen amuñu ci droit ne leen ma gis leen fii ak ñu gisee yow fële ëllëg bu leen ci xam nga defe naa gisanteeg moom fële si Malick ba kër bañ ba tëdd ci naaj bi cey ay suñu mag ndegam ndegam gisante bi mu wàjja bi nii rek lay éviter mu xam tuma laak nekk parce que mu wàjja bi danger yu bëri ngi waaw ak xalwa bi. xam nga léegi ñu bëri comme tey léegi sëriñ bi ñëw mu nekk si biir muy recevoir kenn par kenn. jigéen ak góor du ñu wéet mhm. bu fekkee ne yow jabaru jaambur nga wala doomu jaambur boo xam ne dëgër nga te kii sooy dem moo tax yonent bi ne bu kenn tukki te àndul ak la ma di mahram maas zi mahram gis nga màkk sax léegi ñoom ci aj bi da ngay gis ni ñuy insister. ne ñoom. foog nga indaale maxaram nga indaale maxaram. bu dee te maxaram nag dañoo war a xam ne fii ci Sénégal dañ defe ne maxaram jëkkër kese la. Mm. mais maxaram du jëkkër kese. mun na nekk frère. mën nga ko firee mën nga ko firee kii empêché rek. lu ñaaw empêché lu ñaaw voilà waaye yow kuy yuuta neex a jàngal tuuti. <laughs> kuy empêché lu ñaaw Alaaji Doudou Gueye sama secrétaire général. moom moo moo doon wax loolu ndeysaan Alaaji Doudou Gueye ca Thiès. maa ngi mm. koy nuyu di ko ziar nekk secrétaire général u Sénélas di nuyu waa Seras yëpp di leen ndokkeel ci weeru koor gi. allah léegi dañuy dem publicité ñëwaat. waa ñu dem publicité wallaay macha allah ñu ànd ak euh, waa Régis dem publicité ñëwaat ci ci bi incha allah. am na solo am na solo. bismillah.